suivre ci Leewtoo TV xam nga ñu ngi si màggal gi nag waaw 18 safar tey la ñu ngi ci Touba Mbacké ñu fekk fii koo xam ne nii yaakaar naa ne moom xam nañ ko bu baax a baax ndax fekk nañ ko fële Malika ba tàyyi ci ay xam nga weeru koo rek yooyu mu def ay benn rek yu mel noonu kon defe naa tey bu ñëwee Touba moom daa mel ni rek waaw euh, waaw maanaam daal def na fi ñëw na fi mu war a ñëw lay ziar la bëggee. Babacar ñu ngi lay delloo siyaar ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen yonent bi di sant suñuy ñaari waajur naan jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfati si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di sant suma sëriñ si Ablaye Diop borom xaas di sant ñëpp di ñaanal senegal gi yëpp di ñaanal ñëpp jàmm saa moom ñu ngi ci màggal gi. waaw. mu mel ni fii ñu fekk nii sax daluwaayu seen Ablaye Diop xaas la de. waaw waaw dalam la ñun moom wax dëgg fa yàlla. sëñ bi fu mu nekk ñu ngi fa ndax day suñu sëriñ di suñu waaye di suñu lépp te ñun mënuñoo mënuñoo dugal bopp ro ci làmmiñ bañ ko ñëwee jox suñu bopp rek moo tax maanaam daal fu mu nee ñu ngi fa fu mu nekk rek ñu ngi fa waaw. Mhm. mais 18 safar buñ ko waxee ci li ñu xam Serigne Touba moo ja moo ne bés bi da cee am ndam loo xam ne nii ndam lu ko ci yàlla boromam defal cant gi mu ko ci war a can dafa lott ci def ko ba mu woo képp ku di jaam rawatina jaamu bi yàlla maanaam rawatina nga di ab soppeem wala nga wéy ci ndigalam wala nga wax sa ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadan nga santale ko ci yàlla lu mel noonu su amee taxawaay ban lañ ci war a am ak ndigal li ku koy jëfe nan nga ko war a jëfe waaw taxawaay bi mooy maanaam jaayante ndax booy xool jaayante dafa bokk ci yoon bi jaayante mooy ku ne xam na ni màggal gi sëñ bi dana woon ñëw leen santale ma yàlla santale ma yàlla nag dafa yaatu maanaam ngi ci jàng xasaayit bernde teral gan ñi jox nit ñi ñam àndandoo ak ñoom bégal leen dañuy xëy suba ba ngoon di jaayante di liggéey di kontaan suñu xool di neex xam nga li gën a doy waar ngay sonn di ñaq coono fu mu feeñ rek bu yàggee xol mun naa jóg mais yàlla xam na ne bañ duggee Touba ba léegi saa bu nuy jaayante ba yëg ni sonn nañ dañuy ànd ak mbégte ndax kiñ koy defal danoo amul lu dul moom danoo amul lu dul Serigne Touba te danoo jaral lépp xëy na amaana luñ ko defalul rek dañ koo amul. wala mënuñu ko moo waral ñun ñu nekk ci màggal gi di jaayante en même temps ànd ak suñ sëriñ Cheikh Ablaye lum ñu digal ñu def lum ñu tere ñu bàyyi. léegi nag loolu am na solo lool macha allah yal nañu yàlla fayal mag ñi yàggal fi xalifa yi guddal seen fan wéral seen ay cër di ci jiital ki nga xam moom mu ngi nekk ci suufam ni muy sëñ Muntaxa di ko ñaal ko ca Tiwaawoon ko ca Cene ba Njaasaan ak ñëpp ba ca Medina Baay yow nag léegi tamit xam nga ñun mënuñu wax ak yow ba jóg te ci làmb da nga jël combat naa <coughs> waaw loolu lañ wax de. loolu lañ wax. loolu lañ wax waaw yow loo wax. man li sama staff wax rek laa wax sama staff loolu la wax de. staff lu ñu wax. jël naa combat. ak kan. Fils de la yow Fils de lañ nga jël. waaw loolu de lañ wax. xam nga da xam Fils de Balla. non xam naa ko ko mbër la ah. hmm. xam naa ko comme mbër la mais xaw ma ko à 100 pour cent. xam nga ko comme mbër la gis nga ko muy bëre loo mën a wax ci Fils de Balla. Fils de Balla franchement nag du ma faral di seetlu ay combat lu bari mais daal xam naa ni mbër la. ku tëgg seen combat. Assane Ndiaye lañ ma wax de. luy lañ ma wax yow général yaay bëri yaay encaissé nga ne lañ ma wax lañ ma ko wóor na. waaw man xam nga man dama am staff te. Babacar. waaw loolu lañ ma wax mooy li ma la Assane Ndiaye lañ ma wax waaw. Assane nga ne sa adversaire doo faral di seetaan ay combat kon daal est-ce que du doon ko kon. no minimiser wu ma ko de yàlla xam na ni fàttalikoo ma fu ma fu ma fu ma demee stade sax seetaan làmbam mais mbër la mënul génn ci mbër yi ndax mu ngi bëre am déet. Ah, waaw kay kon noonu la demee. mais combat dafa taxaw muy déglu ay yu bëri ñu wax ne Fils de Balla daa juum mu recruter général général ko ëpp doole général la dàq bëri yow da ngay confirmer ne yaa dàq bëri Fils de Balla yaa ko ëpp doole. man Babacar sama gëm-gëmu bopp man jàpp naa ni kullu ku taxaw sama kanam ci wàllu làmb maa la mën loolu sama gëm-gëm bopp. Fils de Balla de laa wax mi nga lekk avance waaw man tey jii nii mënumaa toog sax di di gisee sama bopp ci yenn yi mais man fi ma bëggee nga déggee ma ma it tey jii bu ñu ma joxoon ku fi mën. lamb ji de fi mu ne Modou bi moom. bu ma joxoon Modou Lo damay jàpp ni sax man maa ko mën foofu la sama gëm-gëm toll. waaw. yaa Fils de Balla tey seen combat nii taxaw na lekk nga noo xalaat ne moo ko war a daan. non comme li daan daan ay moroomam rek liggéey lu metti fonk sa bopp entraînement. xale géejawaay la de. xale Malika laa yëmbal benn baraak àll ba ñaax mbëbës montagne mbëbës. te da dugg géejawaay ren saison bii jeex daan fa mbaytin ñu ne déet ne waay nga geestu jël fils de la lan mooy sa problème ak waa géejawaay ba nga bëgg koo def yoonu tool. aw maag problème waa géejawaay. bëri géejawaay laa wax. bëri géejawaay amuñu problème. problème mu bëri ngeen am. mais tey jii gis nga làmb làmb rek la tudd mënul weesu làmb des fois adversaire yi day tombé muy jóge foofu rek mais man est-ce que yëngu ni géejawaay am naa fa ay doomu ndey. comme kan. samay copains yi nga xamante ne mag ngi ñoom ba ñuy ànd du sax làmb. barki yeneen ti yàlla Muhammad duñu ay mbër mais samay doomu nday lañ. man nag ci mbër yi laay wax xam ma man. comme comme boo indee loolu géejawaay rek day mel ni géejawaay man ak ñoom ay ennemis lañ. non de maanaam. noonu problème ay amuñu problème. man déglu ma problème bi ma la wax mooy problème bi ma la wax gën a xam problème mu lekk seen avance di bëreeg ñoom laa la ne lu tax nga bëgg koo def yoonu tool danga nga fa jóge ci mbaytin am ndam jëlaat fils de balle. loolu bu ma ko deful damay tooñ xam nga lu tax tey jii nii ki nga war a bëreel rek ngay bëreel amul géejawaay amul pikin amul faas amul feneen xëy na day tombe te tamit ñun ay mbër yi ndaw lañ yaa ngi may dégg bokk guñ ci VIP yi benn fan buñ toog bëriwuñu ko pertement la pour ñun. tey jii bu buñ ñëwee indi ñu adversaire ne suñu combat lañ bëgg amuñu problème mu bëree. kon xëy na day tombe rek ay géejawaay yooyu man géejawaay am naa fa ay soppe am fa ay nit yu baax kon du foofu noonu man sama diggante ak moom duma indi ay géejawaay affaire yooyu teg non non. damay xam mbër la adversaire la bu ma jox jox sama bopp cër te làmb moo ñu boole après bu làmb ji jàllee dañuy eggaliwaat suñu relation ak suñuy nit. man de fekk naa leen si seen benn xarit ngeen dugg gi fekk naa leen fi yéen ñaar ngeen daje fa keroog de. waaw daje nañ fa. <laughs> man fa laa doon sondee combat bi sax ma ne lii war naa mën a taxaw de man mu bokk nañ jëkk wax loolu keroog ne leen bi dañ ko tëgg. waaw wax ji bëri woon na nag mais dama laa bëgg a xamal ni maanaam yooyu noonu pour man du dara. ndax làmb moom ay mbër di ay xale fu ñu dajee des fois dañuy nattante di wane seen bopp mais liñ boole war naa mën a boole ku ne guy gi moo xew woon te suñu waay la nit ku baax la ndax xam nga lu tax ma ne nit ku baax la àdduna boo booy sàkku cër faw nga joxe cër te daf maa jox cër ma jox ko cër kon tey bu xewlee war naa mën a déplacé wu ñëw mais kantaa à may bëreeg beneen booy bu dëkk géejawaay amul benn problème loolu yàqul sama relation ak kenn kon daal loolu moom leer na du yàq sa relation kenn am na solo waaw waaw kon daal mbëri géejuwaay géejuwaay la ñuy àndal ñu mbëri Malika ànd ak général ñoom. waaw mbëri Malika ñu ànd mooy loolu noonu. yàq armée ak ñi dëkk Malika. waaw armée ak ñi dëkk Malika ak ñeneen ak ñeneen mafia bi dafa yaatu. fils de Balla ànd ak ñoom guy geeg ñi dëkk géejuwaay. waaw amul benn problème. dafa war a ànd ak guy gi ànd ak Balla Gaye ànd ak Sa Thiès ànd ak ñëpp loolu du benn problème. waaw bu ak guy gi dina wóor. non gis nga àdduna. barki yàlla bul dugal bopp roo ci làmmiñ barki arxuraan amul luy luy tax li ma boole guy gi ci ay muy jóge ay affaire rëmbër ba ma ciy bàyyi xel dara su ma nekkoon sama combat bañ ne suba la komba ma daje guy gi dama koy nuyu jox ko cër muy lu ñu séq loolu dafa mën a yàq dara man dam man man damay sàkku ndam rek est ce que maa yor ndam tudd nga ci Balla Gaye de Balla Gaye day doomu waaye booy bi fii de Balla la tudd nga ne naa ak moom déggoo li ma la wax Balla Gaye champion la naan la comme fi nga bëgg a waxee laa lay laa lay wax comme loolu mënul yàq dara isa xam nga ni moom mun dañoo boole sax ki ñu bëgg moom day bëggee Balla gay man damay bëggee Balla gay moom sax moom fils de Balla fils de la tax moo ko tuddee boppam moo ko tuddee boppam mais bu pare mu uuf ko ne ci keppaaram waaw loolu loolu coow jiwul loolu du benn problème loolu dina wóor ci yow non ragaluma loolu nag waaw man la l'enfant chéri de Malika yéen ñaar ku gën a bëgg Balla man li ma li ma li ma li ma tax a def bëri na mais am na ci loo xam ne doo ko fësal ndax amoon na ay combat yoo xamante ne damay dem ba sama koñ sax dañ ma doon mere ci ay combat Balla gay comprendre nga mais nag àdduna la xëy na yàlla dogalul ma ak moom ñu mos a toog waxtaan wala wala ñu wax mais da ciy am loo xam ne soo soo xoolee samay commencement làmp yi ma ci yi ko yi ko yàq sax xëy na Balla Gaye ci la boq ndax sañ-sañ bi ma doon doxee dama daan def ay tent waaw koy tent ak affaire yooyu noonu ba tax looloo ñu sax toppoon ñun ba suñu làmb da daan jafe mujj gi boo xee ñu ne booy bi xadar bi dafa bari day xeex affaire yooyu noonu mais loolu du dara nit mën ngeen a bañ a dëkk gam ci moom cofeel na Balla daal kon sa royukaay la ci làmb bu baax Balla Gaye maanaam lu baax ku ko gis xam ni lii lu baax lagay Gaye champion la li mu fi def ci làmb kenn naataabalewu ko te ñun ay mbër lañ li mu fi def ci làmb ku ne ñaan nga yàlla def ko wala nga def lu ko raw tamit kon mënuñu koo ñàkk bañ a roy. yaa ngi ne yaa ngi baab de. non baabu ma nag. Balla Gaye bu dul dara sax moom sama mboq soose la. soose waaw. man ni man ni ko. <laughs> sama mboq la rek mooy lool noonu. ah doon mbal jéey la xam mbal kontaan. waaw waaw wax nga ko jeex na. <laughs> ñoo bokk Casamance ñun ñëpp bu méttee Casamance lañ jëm. waaw Casamance lañuy ñibbi. Uh-huh. waaw ñun ñëpp bu méttee Casamance lañ. maanaam léegi looy mujj wax. waaw li may mujjee wax rek naan jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Borom Touba jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla màggal gi njëpp képp ku fi am soxla yàlla na ko suñu borom saafara képp ku fi ñëw ci tuubaa gi indi fi jàngoro wala métit yàlla na ko suñu borom saafara. yàlla na yàlla wéral ñëpp ñëpp am jàmm xol yi féex am xaalis lépp saawaan baawaan di ñaanal ñëpp nag màggal geeg gàmm geeg ñëpp dal di leen ñaanal di nuyu nag sama sëriñ di ko ñaanal yàlla na yàggal yàlla yàggal taxawaayam yàlla bàyyi ko ñun mu yàgg fi loolu te ànd ak wér borom xaas yàlla na ko fi suñu borom bàyyi bu wér a wér a wér a di nuyu sama mbokk yëpp sama copain yi nekk ci diaspora bi ñoom fi mu toll nii. danoo tàmbali te takku nañ ba dëgër ndax laamu ji da leen a jaral waaw ngir combat bi amagul date mais ñoom fi mu toll nii nee nañ date bu ñu jàpp moo wax leen ko ñu dagg bee ñëw ku ci mel ni ñoom Ahmed Fall Zungule mafia bi ñoom mbës gars yi xam nga gars yëpp ñoom Toldo ndeysaan déggal buur ñoom Toldo mafia bi yëpp daal. ñëpp ay ñëw Pa Matar. yaa fi ku dàq bëri. ah Babacar est-ce que doo ko gisee man tey jii su ma nee maa dàq bari ñu ne gëm-gëmam la mais xoolal rek yow. koo doole. ah xale laa te noo faam noo fi mu maladie j'ai travaillé pire et kon moom yaa ko mag wala ma la mag. góobu ni maa mag nag. Babacar man est-ce que ni ba may dugg ci làmb damaa yokk benn at ngir bëgg bëre. ku dàq xeex. ah du dellu ginnaaw. ku gën a xaw ma ragal. kon ñu kon ñu joxante rendez-vous ak Assane Ndiaye. jeex na tax. gën a bég ci yow sant sama xarit yëpp di daanak daan ak sama sama sama mag sama lépp. mu mel ni gi nag kon Cheikh Abdoulaye Diop xaas mi ñu fekk si ci dalam lii la ko sëriñam indil comme mu war ko aña tey ci bésu 18 safar bi sëriñ Jili Fata Fallu sëñ bi maa ngi lay ziar mu mel ni kër gi moom yow la ñu dénk lépp. waa sax Ibrahima Diop boole la ak ab Abdoulaye Diop xaas yaay coordinateur waa waaye sax yaay coordinateur sëñ bi mën nañ ne. waaw jërëjëf ñi ngi sant euh, sunu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di am mbégte ndax lii la Serigne Touba santaane woon ku nekk nag ni nga mel rek noonuy jëfe ak yow sëñ jiili mu sëñ Abdou Fatah mu sëñ Fallou bari na ay xarit bari na ay soppe bari na ay àndandoo bari na lépp mais sëñ Ablaye Diop xaas mi moo ko soppal boppam dikk toog ci wetam ne ko maa la soppal sama bopp bisu Touba lu fi mënti am man ci yow laay dal ndindi nag mooy ndindi sëñ Fallou fii lañ daan taale kano yi moom it ñëw na fi kana yi di tàkk mu taal indi ay kanoom jàppale jaam yi fi nekk yëpp ànd nag ak soxna May Diop mi nga xam ne mooy aaw sëñ bi di sama jigéen bu ñu ma seddee ñu ànd organiser lu mel nii sëñ bi ne woon na ko biig bul euh, reeral mais bu subaa bul ndékki defe naa ne lii war na firnde gi moom nag moo wan loolu sëñ ji li ci taalibe ci yar ci teggin ak ci tabe fekk na fi lépp nag mais day ñëw dolli ndax sëñ ji li ko xam-xam ne du xaar kenn ci dara barke sëriñ Touba sëñ Abdou Fataay baayam sëñ Fàllooy maamam sëñ Cerno Juuf làmbaay maamam. kon dañoo bokk foofu dañoo fa kii ndax man bool bool laa. bete bete pire. sëñ Fallou sëñ sëñ Ceer moom ku ñu seq. kon su sëñ Ablaye Diop xaas nekkee di dimbali askanu senegal ngeen xam li muy liggéey yëpp te nëbbuwu ci wane ay firnde. ñépp di ko wër invité yi bari fu nekk di ko wokaay mu ne man maa nga jëm dindi ci sëñ war na fa fekk teraanga ko xam ni gu yéem la war a doon waaw dafa bàyyi dalam moo la ko waxal boppam euh, ngir fii ngir jëmmi sëñ jili ak soxna may mii euh, sëñ jili mooy li wax sànq defe naa avant moom mii di ñëw defe naa wax naa lu mel noonu wax ci baaxam yaatoom lii nii ku yaatuwul rek mënoo ko démb ñoom dañoo sonn ci ñaar ñi wax dëgg yàlla dama dem naa ba am ci kersa nee naa dañ ma tegal boolu reer yi xaw ma fan lay commencé moo tax bi sëñ jili wat dama ko ni man li ma jaaxal xaw ma waaye añ biir gis nga Babacar fu may commencé fi mu ne jaaxal na ma euh, kontaan naa daal waaye moom macha allah soxna may kontaan nañ daal ci ci kii bi yàgg soxna si ñas ñoom it euh, macha allah macha allah Cheikh Ibrahima nag xaritam ñëpp xam nañ guy ak sëñ sëñ Ablaye Diop xaas guy bi mu dikkee dafa xool sëñ bi daal naa kii de sopp naa ko kii moom bala dama fi ñëwaat spécialement ànd ak sëñ Ablaye Diop xaas yendu fi fanaan fi ba pare sàkku si moom ñaan. màggal gi nag bu ñu ñëwee kër wala boog si daluwaay sax Ablaye joob dañ fee fekk ay mbër fekk nañ fi nga xam ne mooy armée ak général Malika defe naa ñooñ ay nitam lañu moom itam yaakaar naa kon faaw ñu dégg suñu micro laaj ko xalaatam gis-gisam ci màggal gi waaye digganteem ak mbër yooyu nga xam ne ni ñoom nekk ak moom Cheikh Ablaye ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñu leen di fay di sant yàlla di julli ci yonent bi di kontaan fi ñu daje fii dëkk bu sell bi di Touba di rafetlu li fi xew mbër yi nag damay wax ren moom dañoo màggal dañoo ñëw pour màggal waaye ñëwuñu pour làmb xanaa fi mu waaye nag mënut ñàkk xëy na ñu barkeelu ci ci kàddu yi ngeen ji laaj wax incha allah. Cheikh Ablaye Diop euh, ci màggal gi 18 safar yaakaar naa ne li nga ci xam ak li ñu ci mën a wax ci ki ko woote ak yéene bi loo ñu ci mën a tënkal. waaw mooy li ci ëpp solo mooy ba mu ko ki ñu fi tax a daje di Serigne Touba eh, tax ñu ku ne fu ne nit jóge fu ne ñëw ci bisam bu sell bi daj ci tàngoor bu metti li xew ci yoon yëpp xew ca di mastawu it ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakken ci yoon yi dafa metti ak accident yi bari na di ñaan suñu borom ñëpp retourné ci jàmm accident yàlla bu moomati di wax rek moom ci boppam bu ñu xoolee ci moom comme exemple rek daanaka lu ci waay ñàkk wala lu ci waay daj rek doo ko yëg ndax Serigne Touba lu ci waay daj ci metti daj na lu ko raw te musta woon ci côté boobu bokk na ci damay wax nag te bi ut yiw fii la gën a gaaw di tuubaa kon moo tax ñu bàyyi suñu lépp nekk ci lépp lu ñu nekkoon daj ci coono bu nekk nag di ñaan yàlla sax yàlla dolli coono bi ndax damay wax coono bànneex moom foo ko sàkkoo rek doy na euh, di di leen gërëm yi Leewtoo ak ak euh, ñi fi daje ñëpp daal incha allah. Hmm. bi ñëwee tamit euh, ziar nañu fi ko mu sëñ jiit yi sëñ Jili Fata sëñ jiili Fata Fall ak sëñ Ala ak sëñ Ablaye diggante bi loo ñu ci mën a tënkal. waaw moom nag sama xarit la sama sama sama xarit la loolu yàlla xam na ko démb bi ñuy départ ñu ni ko départ naa def ni du ma tëdd sànq yegg siwul defe naa bi ñëwee ci guddi gi nu nuyoog ñoom ci lay door a dem dugg néegam tëdd su diggante nag li ko lëm bu bëri na mais xëy na ñun ñaar la waaye macha allah muy ku baax di ko oyof moom di ko ñaan suñu borom yokk ko te may ko wér ci barke yonent bi. diggante tamit mbër yi ndax guy gi gis naa ko fi fekk naa ko fi fekk fi armée fekk fi général malik guy moom lakkal la. moom moom du man rek la lakkal moom xaritu kii moom dama koy wax ni mas naa ko ci benn interview dama ko ne sa ci benn côté du jikkoy mbër euh, dëggu na nag lu mu ko ñaareel bi mooy yàlla xam na ko euh, nit di ngeen dem ba sekk loo xam ni xarit sax dafa fay dox man moo ma dal ci ñoom ñëpp doon na général bi moom moom ba ñëw général sëñ xaas lañ koy wax ah, waaw moom moom it macha allah euh, màggal bu jotee danga koy yërëm yàlla xam na ko fii ne tey amaana boo ko fekkoon ca dal ba nga gis na muy mel danga koy yërëm te du guddi du bëccëg avant màggal beeg lépp mu nga kër ga coono bu ne mu ngi ko ci daj moom mii armée moom ñoom ñaar ay doomu ndey lañ armée it ci daara ja la bokk moom it macha allah. Euh, di ko ñaanal rek sunu borom yokk ko te defal ko jàmm xëy na jóge nañ ci tolof tolof waaye noonu la gënee dama koy wax nii mbir moom bu gënul rek gënul lu gënul moom bu ko def mukk ba jéem a fexe mu gën ndax bu gënoon yàlla def ko kon bu gënul gënul dangay santaat yàlla ñaanaat yàlla leneen bu ñëwee may la ci ndam waaw loolu rek euh, ñu jeexal ak yow rek tey tamit parce que du mën a ñàkk làmb la ñuy wax dañ ciy jox ñu jégalu nag mais noo ko gisee nii nii actuellement làmb ji. ah xanaa gars yi yor gën a góorgóorlu xam nga nag man maanaam dafa nekk loo ni man dama ko bëgg. làmb moom dama ko bëgg sama xol loolu moom yàlla def na ko te xam naa du man kese bëri na ci tey ñoo xam ne boo leen dékkoon micro ñu ne dañoo bëgg làmb kon jéego yi daal war nañ ko gën a yokk li ci ëpp ñaareel bi mooy comme damay faral dégg ñaan kumba am ndey kumba amul daa am ci làmb ji guy gi daa am xaritam ak promoteur am g am xëy nag bu ñu bëggee continuer loolu moom du sotti euh, segam Sénégal yi bëgg nañ ko bu ñu gën a xool liñ ci gën a kiiwee rek comme maanaam booloo jàppalante ku ci mën a dugal loxoom dugal ci loxoom ah ba yéen it yéen ci bay seen war wax dëgg yàlla bëri na ci tey loo xam ni ku mu ump ci làmb boo duggee ci Leewtoo gis ko kon yàlla na yàlla teg leen loxo te defal leen jàmm ci barke yonent bi jërëjëf man it kontaan naa ci yéen jërëjëf ak